def na ci ci daara yi ngeen xam ne toggal ngeen ko jël muy ci woote bii nga xam ne woote lislaam la woote alquran la di ñaanal suñu bopp di leen ñaanal yal nañu yàlla boole fay yiw képp koo xam ne war nañ ko ci diine mu dëgg wuñ ci te yàlla tax kon li ñu ko waxee woon ci li nga xam ne noonu lañ tëral woon programme bi maanaam rek lay continuer incha allahu taala ci gannaaw boo xam ne jiital nañu xale yi nga xam ne doon nañ gaaral seenu njàng léegi li ñu noppee ci loolu comme ni ñu ko waxee woon jox nañu waxtu farata yi li ñu topp rek mooy li ma waxoon ne bu ñu sëlmalee takkusaan soobee yàlla Cheikh Ibrahim Khalil di suñu kilifa di suñu jawriñ ci ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ciy jéem a sukkandiku di njàngale alquran incha allah taala mooy ki nga xam ne moo ñu fas yéene defal li nga xam ne mooy waxtaan mu tey bi incha allah. waxtaan bi nag ñu ngi jëm ci ahamiyatu tarbiyatul islamiya te mooy solo ki nga xam ne yow lislaam am na ko solo ci ak jullit loolu mooy li nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaane tey incha allah Cheikh Ibrahim Khalil comme ni ko xamee yaakaar naa du laaj gën na yaatal gi ci dugg ci jëlloo ko xam xam ne mu jàpp naa ne képp ku ci ñun soo ko tegul ba nit gis nga ko te soo ko tegul ba nit dégg nga ko li ci am solo rek mooy ñun ñëpp yaakaar naa xam nañu ak yëngutoom ci lan la jëm te mooy jàngale ak yare ci diine islam loolu mooy ak yëngutoom ku ko ci xam ci loolu nga ko xam ku ko ci xamul nit boo ko déggee ci loolu nga ko dégg mooy ki nga ne incha allah taala moo ñu fas yéene defal waxtaan wi. ni mu ko waxoon ma fàttali ci waat tuuti su yàlla dogalee fex lu gën ba waxtaan jeex li mu ciy toftal rek mooy kàddu bi nga xam ne baaxoo ndax Ibrahima Khalil Ndoye mi nga ne moo nekk ci daara ji moom mi nga xam ne moo seede ci ci ban bi di yëngu ci daara ji kàddu bi nga xam ne baaxoo na ko jàngale ci jotaay bi. incha allah bu waxtaan bi noppee loola lañ ciy sësale la cay topp bu ko yàlla dogalee mooy beneen kàddu bi nga xam ne sëriñ Mbacke Seck moo koy jàngale moom it ci turu fédération bi nga xam ne ñoo ngi ciy invité demal tey bi moom it am kàddu boo xam ne dina ko jàngale suñu së suñu noppee ci loolu lañ ciy toppal mooy séddale neexal yi ci xale yi nga xam ne ñoo doon gaaral seen jàng ci kanam ñaari micro yi tey baax na waaw ñaari micro yi kon il faut ñu takk takkukaay boobu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 nuyu mbooloo bi teew yépp di am mbégte itam ci jotaay bu mel nii nga xam ne jotaay la boo xam ne soññe ci am jàng ak jàngale mooy li ko tax a jóg te loolu rek mooy li nga xam ne mooy li jullit war a taxoo ci dundam ji yëpp di sàkku xam-xam buy jariñ di ko jariñoo waaye di ko tasaare di ko jàllale ci ñeneen itam bunt bi war a waxtaane mooy ahamiyatu tarbiyati l am solo gi nga xam ne yaru ci lislaam am na ko solo ci doomu aadama ndax yar mooy jubluwaay bi nga xam ne moom lañ jublu ci lépp lu ñuy def ci doomu adama bi di ko jàngal di ko wan aw yoon jubluwaay ba mooy mu yaru ami teggin xam li ko war digganteem ak boroomam xam li ko war digganteem ak boppam xam li ko war digganteem ak moroomi bindeefam yi muy dundandoo ci kaw suuf yar boobu moom mooy li nga xam ne moo wuutele nit ak yeneen yi muy dundal ci kaw suuf te du nit muy ay bayima yar boobu moo leen wuutale moo wuutale leen ak yooyu yar boobu nag mooy jubluwaay bi nga xam ne mooy jubluwaayu lislaam te mooy tax jullit bi doomu aadama bi yor ay jikko yoo xam ne yu ma sëkk la yu rafet la moo tax baatu yar bu ñu ko dee xam ne li muy tekk mooy ñu jéem a dundal suuxat li nga xam ne suñu borom denc na ko ci doomu aadama bu nekk ci kattanu xel ak kattanu yaram ak ay melokaan yu rafet yoo xam ne suñu borom denc na ko ci doomu aadama bu ne ndax doomu aadama bi dafa mel ne aw jiw jiw wi moo xam gerte la wala leneen lu mën a doon la aju ca gàncax ga lépp suñu borom denc na ko ci biir kemb bi kemb bi xob yaa ngi ñu denc ci biir reen yaa ngi ñu denc ci biir tóor-tóor yaa ngi ñu denc ci biir meññet mim nar meññi beneen doom bu mel ne moom lépp a ngi ci biir yarkat bi kon day xaw a nuroog baykat bi ab liggéey xam ngeen ne baykat bi li ko war ci mbay mi mooy mu wut gàncax wut aw jiw wu sell dem ci suuf soo xam ne su laab la bu jikko fa su fekkee gàncax la goo xam ne ci taw bi lañ ci sukkandiku taw bi di ko suuxat wala moom mu di ko suuxatal boppam ci ndox mu sell di ko soril itam lépp lu ko war a mën a gàllankoor ci am ñax mu ko war a yàq amaa la ca des nag ci saxal ko génne xob ya di ko màggal ba mu meññaat loolu moom nekkul ci loxol baykat bi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala la nekk moom mi ko denc ci biir jiw woowu waaye nag yaa taxaw di sonde ba loolu mu denc ci biir mën a génn kon doomu aadama bu nekk itam suñu borom tabaraka wa denc na ci moom lépp loo xam ne mooy ak mbaax waaye nag daa laaj ay taxawu laaj toppatoo ba mbaax googu mën a génn kon ni ñu toppatoo jiw bi ba gàncax gi ci biir mën a génn suñu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ne fa aqim wajhaka liddiini xanifan fitrata allahi allati fatara annaasa alayha mu ne ñëpp day ci diine lañu war a jëm loolu mooy li dëppoog doomu aadama mooy mu am diine ndax nee na ci la bind doomu aadama bu nekk daf la bind ci nga war a mën a wéetal suñu borom tabaraka wa jaamu leneen lu am ci diggante bi rek lu wuuteeg loolu ak jàdd jàdd la goo xam ne la ko waral mooy ñàkk a taxaw mel ne jiwu wu nekk la ca doon cosaan mooy mu meññ ñor su demee ba loola amu ca kon am na lu ca gaar benn jiwu moo sikk wala fañ ko ji moo baaxut wala bañ ko ji ndox mañ ko doon suuxate moo baaxut wala dañ koo bayul mbay mu set gàllankoor yooyu mooy tax jiwu wa du joxe lam war a joxe waaye la ca doon cosaan mooy mu joxe meññet moo xam ne mu rafet la noonu jiwu yi amee ay téq-téqit nag noonu la ko nit amee nit kenn ku ne dafa war a baax su baaxul rek am na ci lenn ci gàllankoor yooyu yu ko gàllankoor mooy benn fañ ko ji moo melul nam war a mel muy way jur ya ndox mañ ko suuxate moo jubul mooy njàng mañ ko jàngal wala ñax mi ñu ko waroon a soril soreeluñ ko ko mooy ay àndandoo yu jubul yu ko doon jege te kenn tàqaliwu koog ñoom yooyu ñoo koy jégiyee ba ni mu waroon mel ci ak mbaax duut na mel ni mel ca tool ba bu suuf sa baaxul gàncax ga mën naa bañ a baax suuf si moo tolloog way jur yi bu dee ci ndaw li ndox ma moo tolloog njàng mi muy jàng àndandooya moo tolloog ñax mi ne ci wetu gàncax gi bëgg a ànd ak moom te déggoowut ak moom na ñuy guddee ñax ma noonu lañu war a sore la xale bi àndandoo yi ko bëgg a jege te bu ñu àndeek moom du mën a yegg fa jëm ñu tàqale ko àndandoo leen yar ci lislaam mooy jubluwaay bi nga xam ne moom lañ jublu ci lépp lu ñuy def ci nit te mooy yoon wi mu war a mën a jaarit ba am texe àdduna ak àllaxira moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci Nahju Qadaa'il Haaj ci yar ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru matazza bihi su izzi mu ne moom ab yar day adduna ak alaxira moo gën ci lu nit am ba di ko denc lu nit gën a naw ba di ko denc ab yar moo ci gën nee na lu gën ci lu nit di di ko puukarewoo di ko tiitaroo la ca gën mooy ab yar mu ne if kullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa mu ne képp koo xam ne yaa ngi wut lu baax te boole woo ca yar danañu la xañ lu baax loolee ngay wut wala boo ca jotee doo ca jariñ kon mat naa yittewoo lool buñ ko waxee ay dafa am ay jubluwaay yoo xam ne moo tax ñuy yar nit ki ndax xam ngeen ne lenn lu nekk ak matam mi ngi ci nu mu mate la ñu koy doyee lenn lu nekk njariñam mi ngi ci nu mu mane lañu koy doye ba ci jumtukaay yi nu yor benn bu ci ne am na lu tax ñu defar lu mu màggat màggat te man li tax ñu ko doon ñu defaroon ko ba tey baax na waaye lu mu bees bees ak lu mu rafet rafet te li ñu ko doon doyee mënatu ko kon baaxul kon doomu aadama it war naa laaj boppam moom itam lu tax ñu bind ko ndax loolee tax ñu bind ko nu mu ko matale ci la matam di nekk waaye nu mu ko soree ci la mankem di nekk su laajee bu tax ñu bind ko suñu borom tabaraka wa bi ko bind moo koy tontu ci loolu wax ne wa ma xalaqtu l wal insa illa li yaabudun binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu la kon doomu aadama bi war naa yëg ne kon ndeke moom li tax ñu bind ko mooy rek jaamu borom bi tabaraka wa taala leneen lu muy def lu ne lu koy dimbali la ngir mu mën a taxaw ci jaamu googu waaye loola taxu ko jóg jaamu nag suñ ko waxee muy wéetal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu kon ñu teg nit ki ci yoon woo xam ne dana xam ne yàlla la war a jaamu wéetal ko ci jaamu gi loolu benn la ci jubluwaayu yarub l'islam te mooy ba ca gën a kawe ñaareel ba ngi yar ko ba doomu aadama bi lépp lu muy jëf wala mu di ko wax wala mu di ko xalaat lu baax lay doon dem ba waxam yépp jëfam yépp xalaatam yépp aw yiw lay doon loolu itam bokk na ci résultat yi nga xam ne des na ko jële ci yarub l'islam ñetteel ba mu yëg ne fu mu nekk suñu borom tabaraka wa taala mi koy fuglu mi ngi xam ay mbiram moo ko gën a jege boomu xolam ba lu muy jëf aajowu ji ku koy garde wala ku koy taxaw waaye dana yëg ne borom bi tabaraka wa taala mi ngi koy gis mi ngi xam li muy def te jëf lu mu néew ak lu mu rëy rëy bis dana ñëw jëf jooja ñu teewal ko ci sa kanam wa wajadu ma amilu xaadira danañ fekk li ñu jëfoon mu teew te nag bu teewee dañ koy fay fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala darratin sharran yara nee boobaa ku jëf jëf ju baax ak lu mu néew néew néew néew da nga gis ku jëf safaan ba itam ak lu mu néew néew néew da nga gis loolu yarub lislaam day def ci nit ki mu fas loolu bu boobaa lu baax bi ci xeet dara du ci naw dara itam lu mu ko lu mu ca def lu mu rëy rëy rëy du ko naw waaye lu bon it du ci xet dara ndax xam ne bis dana ñëw ñu teewal ko ci kanam yar boobu nag ci ci jiitu ci am ci aw sax ci doom mooy ay way jur ñoom la seenu sas jiitu ci yar seen doom ndax doom teraanga la waaye taklif la tasrifun wa taklif teraanga la bu la yàlla teral ci may la doom waaye sas la la ci sas itam nag sas moom la bayloo teraanga nag ak xéewal benn bu nekk yeyoo nañu sant ko suñ boroom ku mu defal xéewal da ko war a sant xéewalub doom nag ni ngi ciy yàlla mooy nga jaarale ko fi mu la digal nga jaarale fa doom jooy ndax doom suñ borom wax ne moo koy maye kenn mënu koo may sa bopp lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau inaata wa yahabu liman yashaau dhukur aw yuzawwijuhum ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سورة الشورى borom bi ne moom de moo moom mboolem lu nekk ci asamaan ak suuf muy bindit lu ko soob nee na mooy may ku ko soob doom yu jigéen kese may itam ku ko soob doom yu góor kese booleel ku ko soob ay góor ak ci jigéen mu booleel ko ko mu ne mooy def ku ko soob itam nag du am doom wa yaj'alu man yasha'u aqima ndax innahu alimun qadir ndax nee na moom dafa xam te man kenn ku nekk xam na li nga mérité te itam am na kattanu man la ko defal kon nag ku suñu borom tabaraka wa taala boole may dénk la war ko koo sant bu baax ndax nee na almaalu walbanuun zinatu lxayaati dunya walbaqiyatu lsalihat xayrun wa xayrun amala suratul kaf nee na taaru adduna nee na mooy alal ak doom adduna yëpp boo seetee nit ñi li loolu rek lañ bëgg amul njaboot ak loo yore njaboot ga kenn weesuwu fi loolu ci adduna almaalu wal banuun zinatul xayaati dunia ñaar yooyu boo ci manqué la rek da ngay daal yëg ne yow adduna manqué la nga ci lu rëy boo amee alal te amul njaboot daanaka alal ji du neex ci yow ndax lu ca weesu la ngay jariñoo ñeneen rek a koy jariñoo boo amee njaboot te amoo jàpp ndal boo leen yore itam sa dund dana metti lool kon boole leen ñoom ñaar mooy li nga xam ne mooy tax dundu nit ki nekk dund boo xam ne eh, dund bu am taar la njaboot boobu nag borom bi tabaraka wa taala daf ca daggal way jur aw sax woo xam ne wu rëy la ñu bari danañ bay sas bi waaye dañ dul xam fa dig wayam xam nga aw sas buñ la ko tobbilee te xamoo fu toobamale mën ngaa bay ba defe ne jeexal nga fekk jeexaloo ñu bari defee nañ ne sasu doom wi leen ci yàlla sas mooy bu mu xiif dëgg la loolu ci sas wi la bu mu mar ci sas wi la bokk bu mu rafle ci sas wi la bokk bu feebaree nag ko faj ci sas la bokk ñu bari nag bu ñu defee yooyu dañuy jàpp ne bay nañu sas wi jeex na ñu ne moom ko man njaboot la duñu xiib duñu rafle duñu mar dañu dëkk fu baax dañuy sol lu baax waaye nag fekk na sas wa tooba ma gën naa sori foofu borom bi dana woon yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gën yàlla tegal leen seen bopp safara waaye tegal fay seen njaboot man na ngeen jëf jëf joo xam ne dana leen tax a mucc ci safara bu ëllëgee waaye seen njaboot it na ngeen leen teg ci yoon woo xam ne ëllëg danañu mucc ci safara kon sa njaboot sas wi gën a rëy mooy nga teg ko ci yoon woo xam ne bu ko wàccul bu ëllëgee dana mucc ci safar waaye loo ko mën a defal ci taraangay àdduna te tegoo ko ci yoon woo xam ne wu koy mën a musal ci safara la boobaa day mel ne defaloo ko dara ndax lépp lu waay am te muccegoo ci safara day mel ne amoo dara ndax bis boo jàkkaarloo safara mboolem loo amoon buñ la ko laajee da nga ko joxe ngir bañ a tàbbi safara walaw anna lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suui alazabi yowma alqiyama yawaddu lmujrimu law yaftadi min azabi yowma idin bi banihi wa sahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwiih wa man fil ardi jamian tumma yunji nee na bu keroogee ci waajalul woon boppam lu koy musal ci safara buñ ne ko woon joxeel say doom te ba ñu dugg safara mu joxe doomam bi baniihi buñ ne ko joxee sa jabar wa saahibatihi dana ko joxe buñ ne ko joxee sa mbokk wa axiihi dana ko joxe bu la koo joxeel sa famille bi nga bokk yépp wa fasilatihim lati tuwi mu joxe leen ñoom ñépp pour bañ a dem safara buñ la ko war joxeel ñiy dund ci kaw suuf ñépp tabbi safara te nga mucc yow mu d'accord ci loolu wo man fil ardi jamian summa yunji bu dee ci wàllu alali nee na bu fekkoon ne moo moom adduna ak li ci biiram ñu wut beneen adduna tegal ko ci walaw anna lilladina zalamu ma fil ardi jamian wa mislahu maahu ñu jël beneen adduna bu amul tegal ko ci lasta daw bi bii dana ko jotoo dana ko joxe ngir mucc ci safara kon nag defal bi gën a rëy bu ñuy defal nit mooy teg ko ci yoon woo xam ne ëllëg dana ko tax a mucc ci mbugalum safara moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne kenn ku nekk ab tàmm nga te nag sàmm bu nekk danañ ko laaj la mu doon sàmm wax nañ ne Sëriñ Tuubaa mas na ko leerale noonu kilifa ñi nga xam ne mbooloo dafa ne ci seen gannaaw xamal leen ne ay sàmm ngeen ci mbooloo mii leen ne ci seen gannaaw te sàmm bu ne nag danañ ko laaj ñaari raa ñaari raa lañ koy laaj genn raa gi mooy réer li nga doon sàmm mbaa réerul geneen raa mooy ruur li nga doon sàmm mbaa ruurul waaw ak ruur kuy sàmm ko ne dañ la ko laaj boo sàmm see ba ngoon ñi la sàmm loo ji woon nga ne waa mbaa menn xar réerut nga ne waaw xar yëpp a de ñu ne mbaa menn xar ruurut nga ne menn xar ruurut parce que su réerul te ruur itam borom ruur ma dana ko kon nag kuy sàmm na nga bàyyi xel ñaar yooyu réer ak róor réer moom mooy ka sànku dem moom nga xam ne moom sànku na wàcc na yoon wa róor nag waaye ki nga xam ne sax mi ngi fi waaye daa ne ci ndëngte daa ne ci ndëngte fu mu toll mi ngi ci mooy nekkul ci jub kooku sàmm bi war na ca taxaw bu baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne njiit li nga xam ne moo ne ci kanamu jullit ñëpp kooku day moo gën a rëy ak càmm des na ko laaj leen doon tàmm bu ëllëgee mu ne waaye boroom kër bu nekk ci sa njaboot yow it ab sàmm nga ci dañu la ko laaj say doom ak say soxna ak képp koo xam ne ñu ngi ci sa kilifteef mu ne jigéen itam ab sàmm la ci biir kër boroom këram ndax doxaliinu kër ga ak la fay xew lu ci ëpp ci loxoom la nekk moo koy xam mu ne ki nga xam ne dañ koo jël ci kër gi di ko liggéeyloo itam kooku itam danañ ko laaj li ñu ko dénkoon di ko ci liggéeyloo ndax sàmm na comme def mu ne kon nag kenn ku nekk bul xeeb sa responsabilité bul xeeb saw sax taxaw ca ba ma tëkk te xam ne ëllëg bis dana ñëw ñu laaj way jur wi ni ñu ko waxee ab sàmm la ci ñi nga xam ne mooy njabootam njabootam dafa mel na doom ji buñ la ko joxee aw jiw lañ la jox ñi ma ko misaale woon ci jiwul jiwu biñ la ko joxee mu set wecc bënnul xarul deful dara nga war koo ji toppatoo ko ba mu ñor ba mën a nekkaatu jiwu moom itam bu ëllëgee moo tax doom ji itam dañ la koo jox nga war koo toppatoo sàmm ko bu bu ëllëgee moom itam ñeneen mën a soqi ko ci moom mu yar leen comme jiw li ji ren ni mu ñore ba bu déwénee nga amaat ci jiw doom ji moom itam noonu lañ ko war a toppatoo ba bu ëllëgee moom itam am ñeneen ñu soqi ko ci moom ñoo xam ne ci moom lañuy ñuy jële ak mbaax moo tax mu ne ma min mawludin illa yuladu ala alfitra nee amul ku juddu lu dul ne judd na ci mën a baax kenn judduwaalewul bon mu ne fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi way jur nag benn ñooy sàggan ba mu nekkub yahoot wala mu nekkub nasaraan wala mu nekkub majoos wala boog ñu góorgóorlu ba mu nekkub jullit nu mu mel daal am nañ ca responsabilité yonent yi ak nit ñu baax ñépp nag daañu daanañu yittewoo njaboot gu baax ndax doomu aadama amul ci àdduna lu fi ëpp solo njaboot gu bàyyi ko ci moom te baax loolu rek moo fiy des ci aw turam amaa leneen loo fi am ci àdduna lu dul loolu bis dana ñëw ñu koy askanale keneen njaboot rek mooy li nga xam ne moom du deñ ñu la koy askanale bu dee alal lu mu bari bari ak xeetu alal wu mu mën a doon jamono dana ñëw ñu naan moo ko moomoon bu dee kër la da ngay ñu naan kër diwa woon kërama woon même bu dee soxna da ngay dégg ñu ne kii soxna si diwa woon bu fekkee bàyyi nga ko fi dañ naan soxna si diwa woon waaye doom ji nag kenn du ne ci doom yi diwa woon moom doom yi diwa woon déedéet ba tey doomam rek kon nga xam ne boo fi jógee doom dong nga fi defe li ci def lépp keneen moom na ko sa doom nag kenn mënu ko moom yaa ko jur ba tey benn boo demee yaay bàyyi moo tax kon nag nga yittewoo jar na li nga am ci alal lépp nga sacrifier ko defare ko sa doom ndax boo dee korkoral sa alal ba bañ a yar sa njaboot alal jooju bu ëllëgee ci yeneen loxo lay dugg keneen moom ko njaboot googee nag bu ñu bonee itam ñu la koy askane naan moom de moo fi bàyyi doom yu bon yi waaw wala kon bu boobaa alal ja nga doon denc jëralu la woon dépenser benn dërëm sa njaboot jëralu la ko woon tey alal jooju ñàkk nga moo tax kon jar na loo am ci alal nga dépenser ko yare ko sa njaboot ndaxit njaboot googu ñoom rek ñoo fi mën a desal saw tur ñoo fi mën a desal saw tur fu ñu mën a egg ci ak mbaax mbaax googee muy jël ci waat ci yow ñu ne ah moom di diwa leen jur muy tur woo xam ne du fay benn yoon moo taxoon yonent yi yitte woon ko doon ko ñaan ak daan dénk seen njaboot yi ñu nekk ci diine gis nga Ibrahima ak Yaqub alayhim assalaam suñu borom mi ngi nettali wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafaa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun nee na yaqub dénkoon nañ seeni doom kaddu googu di kaddu tawxid ñu sax ci diine dajale njaboot gi ne leen yéen njaboot gi na ngeen xam ne yàlla day diine doomu aadama li ko yàlla tànnal mu war cee jaar mooy na am diine kon ngallawaay bu leen faatu lu muy nekk ngeen ay jullit fala tamutunna illa wa antum muslimun nga gis nuux alayhi moom itam nam doon xëri ci doomam nekk nit ku baax mucc ci safara ba wal ma ñëwee ndox ma nga xam ne moo doon labal ña gëmul yàlla te doom ja nanguwul a ak moom dugg ca gaal ga ña duggul woon ca gaal ga du doomam rek du doomam rek waaye gis la ci gën a sonne wanaa daa nooxun ibnahu ña ca des noox woon a doom ja wa kaana fi maazilin yaa bunayya kam maana wala takum ma alkafirin mu ne ko yow sama doom kaay dugg ci gaal gi ànd ak nun bul ànd ak yëfar yi gis nga nim ci sonne woon ba nar cee am sax problème moom ndax gis nga la ko borom bi tabaraka wa taala tontu fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni aishuka an takuna min aljahilin gis nga la mu mujjee rabbi inni audu bika an asalaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taxfir li wa tarxamni akun min alxaasirin loolu lépp doom jekk ko yóbbe ngir doon xër ci doom ji mucc rek nga gis Sakariya alayhi salaam bi mu yeexee am doom da ko doon ñaan sonn ci lool fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya Sakariya di ñaan boroomam tabaraka wa taala ne ko yàlla na nga ma may doom joo xam ne daf may donn waxul donn ci alal nag waaye daf may donn ci lu baax li nga xam ne ci lañu nekk ci laa nekk te jële ko ci samay maam te yàlla doom jooju yàlla nañ ko def muy doom joo xam ne joo gërëm la nga gis Luqmaan moom itam mu sonn lool ci di dénk doomam wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaisu ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim luqmaan di waar doom di ne ko yow doom bul bokkaale mukk ak yàlla bokkaale kat tooñ gu rëy rëy rëy la te itam wërsëg bëgg ko bu mu tax nga ñaawal na nga koy wute na nga rafetal rek ni ngay wute ndax li yàlla dogal ci yow ci wërsëg ak fu mu mën a nekk dana ñëw yaa bunay innaha in taku misqaalu xabbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ardi yati biha allah inna allaha latifun xabir na nga rafetal sa wutin yaa bunay aqimi salaa dénk doom ji ne ko dee taxawal julli wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar del digle lu baax foo toll del tere lu bon wasbir ala ma asaabak lépp lu la dal ci nattu na nga ko muñ inna zalika min asbil umur wala tusair xabdaka linnaas bul jàngal sablex ci nit ñi xeeb nit ñi di rëy rëy lu ci seen kaw wala tamsi fil ardi maraha bul dox ci kaw suuf di puukare woo ko siisaru inna allaha la yuhibbu kulla muxtalin faxur borom bi kat bëggul képp koo xam ne da ngay tiitaru ak di damoo li nga xam ne moom la la defal gis nit ñu baax ñi dañ ko doon dénk seenu njaboot xir lool ci ñu baax borom bi tabaraka wa taala nett li ñu ki ñu yar ci lislaam ki ñu yar yarub lislaam su màggee moom itam bokk na ci la muy yittewoo am njaboot gu baax hatta ida balaga asudda wa balaga arbaina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin borom bi ne ki njar yarul islam su demee ba nekk mu kàllaf am ñeent fukki at hatta isa balaxa asudda wa balaxa arbaina sana lu muy wax rabbi am an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma mën a gi nga ma defal nga kon kooka du damoo la mu am du ko tiitaroo du ko bàkkoo waaye day xam ne yàlla moo ko ko may mu teg ci ne wa ala walidayya ak xéewal gi nga xam ne defal nga ko samay way jur bañ yar ma yar bu mel nii kooka itam kon fokkul ay way juram reconnaître na li ñu def ci moom ci lu baax wa an amala salihan tarda yàlla yàlla na nga ma may ma mën a jëf lu baax loo gërëm wa aslih lii fi zurriyati te nga yëwéenalal ma nag baaxalal ma sama njaboot gis nga nga baaxalal ma sama njaboot inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin borom bi ne ulaika alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu nee na ñu mel noonu day laay nangul la na a rafet ca la nga xam ne moom lañ jëf ba noppi jéggal leen seeni bakkaar mu wutee nag kañ yar yar boo xam ne du yarub lislaam wallazi qaala li walidayhi uffin lakuma kañ yar beneen yar bu dub yarub lislaam su màggee way jur ña ca doon sonn ñooñu lañ jëkk a jëppi ñooñu lañ njëkk a xas mbas ma leen mer lu ma manqué ci àdduna rek yéen a ko yóbbee atata idaay ni nii an uxraj suñ koy waar naan ko te nga gëm yàlla mu ne da ngeen naan su ma dee damay dekk wa xad xalatil xoroonu min xabli ñaata génération ñoo fi jàll kenn dëkkiwu waxumaa yastaxiisaanillah su ko defee dañu wëlbatiku ne ci yàlla naan yàlla xetti lu ne ci suñu doom yi naan amin inna waadallahi xaq te nga fa yaqul ma hada illa asaatiru awalin mu ne li ngeen ay léebaki lëpp la te ñoo ko ko jàngal jàngaloo ko alquran jàngaloo ko dara ci l'islam ba muy magum jëmm nga ne ko tey nga gëm l'islam tontu la lool rek lay doon ma hada illa asatirul awwalin borom bi ne ulaika alladina xaqa alayhim alqawlu fi umamin qad xalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kaanu xaasirin ñooñu day mooy ñi nga xam ne safara yey na ci ñoom bu ëllëgee kon ñaari résultat yoo rek ñoo am ci yar yi kiñ yar yarub l'islam gis nga la muy wax rabbi awsini an askura ni'mataka allati an'amta alayya kiñ yar yar yarul yarul budul l'islam wallati qaala li walidayhi uffil lakuma li borom bi tabaraka wa taala dellu wax jaamam yi nga xam ne ñooy jaamam yi nga xam ne gërëm na leen ba muy tudd seeni melokaan bokk na ca ne bokk na ca seeni ñaan wallazina yaquluun rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama gaa yu baax yi yàlla yi bokk na ci seenu ñaan yàlla yàlla na nga nu may ci sunuy soxna ak sunuy njaboot xol bu sedd maanaam na sun xol sedd ci ñoom ci lislaam nañu mel noo ne sa soxna mel noo ne boo ko saxol dana sedd ci lislaam mu yor melokaanu lislaam woo xam ne boo ko xoolee sa xol sedd sa doom it mel yorokaanu melokaanu lislaam woo xam ne boo ko xoolee sa xol sedd loolu ci genn ñaan ëpp ko solo boo xam ne nit ki war na ko ñaan ci njaboot yonente bi alayhi salaatu wax ne ma naxala walidun waladahu afdal min adabin xasan rawaahu ahmad nee way jur defalul doom lu gën yar ko yar bu rafet ñu bari danañ ci bàyyil seen doom alal ay kër ay oto lu bare bare bari waaye yaruñu leen alal joojee du leen dolli lu may ak mbewte li gën a bari sax dañ koy daldi ñàkk mu dugg ci yeneen loxo ndax dund doomu aadama kenn mënu ko koo assuré boo bàyyi loon sa doom milliard itam du tax mu mën a mucc ci ak ñàkk ak tumuranke bu fekkente ne yaruñu ko yar boo xam ne yaru lislaam la waaye boo ko bàyyilul woon benn dërëm itam te yar ko yar bu baax kooku du deñ di am teraanga ndax mbooloo mu mu dem mu nekk dana fa daal di am place te adduna li fi nekk ci loxol nit ñi la ne adduna li fi nekk ci loxol nit ñi la ne boo melee noo xam ne nit ñi nag danañ sawar a jëflanteeg yow fokk nga daal di jariñ war sëñ Tuubaa di wax ci nax bi naan wa min saadati lfata haysu qasad an laa yaruddahu fuaadu sir rachad nee na wa min saadati lfata bokk na ci texeg nit ki xolub nit ku baax ku ko gis rek accepté ko boole ko ci sa bopp doo ko rejeté loolu boo ko xasee am rek sa mbir yëpp baax nit ku baax ku la gis xajoo la bu dee sa baay mu baayoo la bu dee ku la mat baay bu dee ko la mat yaay mu yaayoo la bu dee ko la mat mag mu def la mag bu dee koo mag mu def la mag loolu soo ko xasee am nee na am nga texe adduna wa min saadati lfata xaysu qasat an laa yaruddahu fuaadu zirrasa xol nit ku jub ku ko rek xajoo te bu la xajoo dana la daal di xajalaale ca lam am ku la xajoo xajal la ko defee kon dootum rànc loola nag la koy waral mooy ak njub boo xam ne def nañ ko ci nit moo tax yonente bi alayhi salaatu ne li gën ci lu doom di bàyyee way jur di bàyyee doomam mooy yar ko yar bu baax yar ci lislaam nag suñ ko bëggee def dafa mel na dañuy tabax kuy tabax nag am na ay jumtukaay yooyu soxla xam nga ne soo bëggoon tabax fii tey soxla nga ciment soxla nga suuf soxla nga ndox soxla nga fer soxla nga béton yooyu yëpp ngay boole di composé nag doo ko mën a amal bâtiment bi lenn lu ci manqué rek bâtiment bi dana am sikk wala bu mën a def yar itam moom it ay éléments yu bari la buñ defee ne benn mbir rek la yar ba kon ma ngay tàmbalee ci kon bâtiment bi ma ngay tàmbalee ci bâtiment bala nga ko tabax li ngay njëkk am mooy terrain boo amul terrain looy tabax bâtiment boo amoon yooyu ma wax yépp ndox ak feer ak ciment lépp mais amoo suuf amoo amoo terrain doot ba am bâtiment kon soo bëggee yar itam fa ngay tàmbali terrain ba mooy way jur ya doom ji foofa lañ koy tabaxe kon ni ñuy tànne terrain bu baax suuf si ba su ca dara sikkee ñu sëkk ko bu laajee sëkk bu laajee maase la ñu maase la ko bu laajee déjji garab ya fa nekkoon ñu déjji ko ngir defar terrain bi ba dootee mën a tabax way jur yi itam noonu lañ ko war a préparé koo xam ne yaa ngi takk soxna moo tax soxna si bu ko yamal rek sa bëgg-bëggu soxna si waaye jàppal na doom laa bëgg doom ju baax la bëgg soxna si moyen la rek jumtukaay la ci li ma jëm ne soxna si doomu taxu maa jóg waaw soxna si waaye doom ju baax mooy li nga xam ne moom la bëgg ndax nee naa la soxna si moom bu fekkee moom rek mooy si jubluwaay ah benn nga mu dem bàyyi la fi wala nga dem bàyyi ko fi bu demee bàyyi la fi kon kon nekkatul sa soxna fàttu na boo demee bàyyi ko fi mu nekk soxna fi keneen kon kooku wërta nekk rek ci jubluwaay bi waaye doom jaga cay sabab lu loola war a nekk jubluwaay bi soxna si sabab la ci doom si moo tax kon nga war caa xool loo xam ne dana jariñ ca doom ja am na bu rek nga ca xool taar bi lu muy jariñ ca la la tax a jóg muy doom ja wutul sax mën na yàq lu bari bu fekkee juddu rek nga ca xool itam juddu ba lu muy jariñ ca doom ja bu fekkente ne àndut na ko yar ndax bu fekkente ne doom ja moom it judd na di daal di jàpp ne mët na sëkk ngir moom fa mu juddu moo mag kon boobaa dana yàq lañ ca bëggoon a def ca doom ja fekkee ki nga doon takk ab juddu rek nga naw ci moom bu rëy ba takk ko ngir loolu doom ja daal di juddu ñu daal ne ko yow kat yaa gën ñi ñëpp ndax yaa leen gën foo juddoo mu daal di jàpp ne kon wëratu la sonn ci lu baax kooku itam kon sa projet yàqu na la ko taxoon da jóg ko yàqu na gàllal kor bu fekkee alal nga jàppee soxna si itam am nañu alal ba tax nga takk ci soxna am ca doom mu judd ci alal ju bari jooju alal jooja mën na koo bewloo mën na koo gàllankoor ba duñ ko mën a yar yar bu baax moo taxoon yonente bi alayhi salatu bi mu limee ñeent yi tax ñu takk jigéen mu ne dees na takk jigéen ngir ab judd am na koo xam ne danaan daa bokk ci famille bu rëy ma bëgg caa bokk ma itam wala dañoo am alal ma bëgg su ma ca takkee may ma amaale alal wala daal dafa taal ma bëgg daal su ma ko takkee ñu xam ne man kenn gënuma rafet soxna wala boog dafa am diine waaw ñeenteel bi mooy diine yonente bi alayhi salatu wasalaam ne fagfir bi zaati diin taribat yada yow nag maa ngi lay dénk yow jëlal ki nga xam ne mooy borom diine ndax diine ja mooy lay yombalal la nga jublu ca doom ja diine ja moom su fekkente ne doom ji ki ko jur ku am diine la nga xam ne daanaka buy jàng wax sax ci ay askar la koy jànge ay ñaan yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale moom la ko yaayam di jàngal ba buy xam ni sax fekk na mokkal na ñaan yooyu kooku xam nga dimbali ne la lu baree baree bari ci li nga bëgg a def ci sa doom ci yarub diine moo tax kon ñaar ñiy sëy sëy bi nañ ko teg ci diine moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne isa ilaykum man tardawna diinahu wa xuluqah fa sawijuuh illa tafaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid mu wax ak jigéen ñi ak seeni kilifa yi leen di maye ne bu nit ñëwee di labat si di bëgg si soxna bu leen commencé xool naan lu muy liggéeyee wala lu fu mu lu mu am wala ndax kuy tukki la ku tukkiwul wala ndax baykat la wala ministre la wala leneen la waaye laaj leen diineem ak jikkoom laaj leen diineem ak jikkoom bu fekkente ne diine ma ngi koy jëfe ndax boo gisee ñu wax diine ak jikko benn la waaye jikko ji mooy résultat wu diine bi ndax bare waa nag kuy jëfe ci kaw te fekk na la muy jëfe doonul loo xam ne lu sax ci xolam la ba mën a jàll ci ay jikkoom ndax diine ni ko borom bi tabaraka wa taala misaale dafa mel na garab loolu bu sëñ Tuubaa waxee ci tasoodu siqaar aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ihsaan ñett yooyu la garab composé wu borom bi ne daraballahu masalan kalimatan tayibatan ka sajaratin tayiba asluha sabit iman baa ngoog wa faruha fi sama islam baa ngoog tuuti ukulaha kulla xiidin bi ismi rabbiha ixsaan baango moo ko gis nga ñett yooyu ñoo composé garab garab day ami reen mooy iman garab day ami xob ay banqaas mooy islam garab day meññ mooy ixsaan waaw julit noonu la war a mel julit daa war a am iman bu dëgër ngëm yàlla bu dëgër comme ni reeni garab gi dëgëre ci biir suuf nga xam ne ngelaw lu ñëw du daanu du tax mu daanu taw bi lu mu bari bari bari reen yi sax rek garab gi du daanu oto bu riir ba tamponné ko it yàqu waaye garab yi moom du daanu ndax dafa dëgër ndax imaan itam garabu imaan boo ko jëmbatee noonu garab sunu garab yii amee ngelaw lu ko mën a daaneel wala taw bu ko mën a daaneel noonu la garabu imaan moom it amee ngelaw yu koy daaneel bokk na ci ngelaw yi jéem a daaneel garabu imaan ak ñàkk ñàkk bu taree ngelaw la loo xam ne bu rombee sa njëmbatul iman bu wutul ñàkk nga da ko gudd waaw ñaareel ba feebar feebar itam bu sa njëmbatal iman dëgërul lool bu ko feebar rombee du ko fa bàyyi waaw da dugg ci yoo xam ne imaan moom nekkatu fa moom ñetteel ba fitna borom doole juy fitnaale di jàpp nit ñi tëj ak a duma ak a génnee ka rey ñu mel noonu ku dajee ku mel noonu itam bu sa iman dëgërul lool boo dajee ko mel bootul sa iman des moo tax bi bi mu tuddee ayat laysal birr iman la ca aju ba pare bi mu daataan egg ci ñi wax dëgg daf ne wassaabirina fil ba'sa wad wa hiina al ba's wa ulaika humul muttaqun kon ñiy woote iman bari na waaye ab saadiquuna xalil ñu dëggu ca ba néew nañ parce que ñi mën a traversé ñett yii wassaabirina fil ba'sa ki nga xam ne dana muñ su ñàkk amee lu mu ñàkk ñàkk ñàkk du ñël du tax mu dem di carte di PME que loterie wala muy dem di def riba wala muy leb nit ñi te du leen fay wala muy agressé nit ñi bu yooyu yëpp ak ñàkk du ko ko tax a def kooku ngëm yàllam dëgër na day ci wolof yi ñaan ku ñàkk du bari mbaj waaw maanaam war na kon moom du du bari mbaj kooka fekk na ngëm ga dëgëru naka noonu feebar feebar itam bu ñëwee comme feebar dafa nekk bunt dee nga feebar du tax a dee waaye nag yoon wi la ba tax na ñi nga xam ne seen gëm yàlla dëgëru dañ koo ragal dañ see bëgg a yàgg yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana waaw nee na ñi seen gëm yàlla dëgërul bëgg nañ ci am junni at moo tax suñu feebaree dañuy tiit ba lépp luñ ne mën naa faj feebar bi rek donte lu lislaam nanguwul la dañ dem def ko bu dee dañ leen sampale xàmb ñu sampal leen xàmb nañ leen rayal ay tuur ñu rayal leen lañ leen takkale xaawa ci béjjën ñu takk ndax jàpp na rek day bañ a dee kooku bu boobaa kon ngëm yàlla gi nekkatu moo tax kon ngëm yàlla dafa war a dëgër ba natt yooyu ci ñëwee fala koy baax boo gisee Ibrahim alayhi borom bi ne ko def naa la ngay imaamu mboolem ñu am tawxiid moom yooyu di yëngal ngëm yàlla yépp yàlla da ko caa musal ndax bu dee wàllu alal nee na walla si yut'imuni wa yasqin lu ma lekk ak lu ma naan moom ci yàlla rek laa koy bu dee feebar mu ne wa iza maritu fa huwa yasqin man su ma feebaree yàlla maam moo may faj maanaam na yàlla diglee ñu na noonu rek lay faj euh, ñaareelu njëfandikukaay bi ñuy jëfandikoo pour mën a yar gannaaw bu way jur yi jàllee ñu tànn leen ci diine ku góor ki tànn ku jigéen ki ci diine ndax borom bi nee na wala tankihul musrikaat hatta yu'min na wala amatun mu'minatun xayrun min musrikatin walaw a'jabat del ci ne wala tunkihu lmusrikin hatta yuminu wala abdun muminun xayrun min musrikin walaw ajabakum ñu ne waaw lu tax mu ne ulaika yad'una ila nnaar wallahu yad'u ila aljanna bu leen denc mukk jigéen di pas-pas ba baaxut muy bokkaale ak yàlla bu leen ko denc ak nag lu la ca mën a yéem nag gis nga walaw ajabatkum gis nga alquran ni muy gàttale ak lu la ca mën a yéem rek moo xam dafa taaru moo xam daa bokk ci famille bu ñuy naw moo xam dañoo bari alal lum la ca mën a yéem gannaaw pas-pas bi baaxul bul ci dugg nga dem takki ab jaam jaam wala amatun mu'minatun tem gëm yàlla xayrun min musrika mu del ci jigéen ñi ak seeni kilifa ne wala tunkihoo al musrikin góor ñi seen pas-pas baaxul bu leen leen may jabar atta yu'minu ba mbata ñu amee tawxid mu ne moom itam ak lu la ca mën a yéem moo xam place bu mu mën a yor ministre laak député laak borom alal laak lu mu mën a doon te pas-pas ba baaxul borom bi dana bu ca dugg wala abdun muminun xayrum min musrikin wala ajaba ñu ne waaw lu tax mu ne bu fekkee da ngaa jigéen ji pas-pas bi baaxul wala yow jigéen ji nga sëy ak góor gi pas-pas bi baaxul ulayka yad'una ila naar dalay woo di la xëcc di la xëcc ba yóbbu la safar lam la fekkee loon ci diina da la cay découragé yow góor gi boo takkee jigéen ju pas-pas baaxut la jëkk wax mooy së booy booy naafi la guddi mu ne sa julli dafa bari xanaa yow doo tëdd sa koor yi nangam nangam xanaa daga jeex sa sikkim bi nangam nangam xanaa pas sikkim nga ah yooyu yëpp ngay dindi ndànk ndànk rek ngay dindi rek ah bu dee jigéen ji tam góor ga takk ko te amul diine bu muuru mu ne ko sa muuraay gi nag sa malaj malaj yi xam nga xaw ma looy niru sa moroom yi ñu ngi lépp yi mees jigéen day day xees ñu ngi xeesal yow xeesaloo fekk jigéen ja doon bañ yooyu yëpp mu ko ciy puus ndànk ndànk di ko ca puus ndànk ndànk ba mujj mel na ñëpp xam nga kooku wane ko yoonu safara teg na ko yoonu safara moo tax moroom yi ne ulayka yad'una ila naar wallahu yad'u ila janna wal maghfirati bi izni moo tax kon ñooñu mën nañoo moytandi ko lool ñaareel ba doom ji suñ bëggee mu yaru yaru bu baax nañ ko wutal bii ak saaliha muy muy muy atmosphère muy climat muy li koy wër environnement bi koy wër na doon boo xam ne bu baax la ndax kat soo bëggee yare foo xam ne la la wër lépp lu yàq la te ndaw li fokk mu am ñu mu àndal fokk mu am ñu muy waxal te li ko wër lépp ña muy àndal ak ña muy waxal lu contre fi ko bëgg a jëmale la foofa dana jafe mu mën a baax ba gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam makka ma nga fa doon jëmbët mais manqué woon dafa bi ak saaliha moo tax mu ñëw madina gàddaa ñëw madina fa la njëmbët la nag doog a dege dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax nga gis ci turu kilifa yii daan sañ ci ay dëkk di ay tool bu defee ne mbay ma rek moo leen fa yóbbuwoon mbay taxu leen woon a jóg mais dañ doon wut environnement bu libre boo xam ne danañ fa mën a yar seen njaboot loolu moo tax ngay dégg gor yi ñu daan gor di sañ ci yeneen i dëkk fu ñu dem ba nit ñëpp fekk leen fa rek ba mu commencé xumb ñu bàyyi ko fa dem feneen ngir defar fa nit ñi loolu bokk na ci li ñu manque léegi ci éléments yi nga xam ne moom la ñuy yare mooy am bii assaale ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dane woon la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkar aw la yusikanna allahu an yabasa alaykum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum par force da ngeen digle lu baax tere lu bon te am na milliers yoo yoo xam ne soo fa nekkee nag mënoo faa digle lu baax lu ñu def mënoo faa tere lu bon lu ñu baax boo teree kenn du baax boo diglee kenn du def foofee nag bor yonente bi la alayhi wasallam nee na bu ngeen ñaanee yàlla du ko nangu summa tad'unahu fala yustajabu lakum moo tax nag ñu daan jóge barab bu mel noonu dem feneen foo xam ne moom mënees na faa digle lu baax man faa tere lu bon ñetteel ba gannaaw bu ñu amee wayjur yu baax xale bi itam dëkk ci milieu bu baax boo xam ne lu koy yàqal nekku fa ñetteel ba nag na jàng na jàng jàng mi mooy ndox mi koy suuxat xam ngeen ne gàncax boo ko jëmbatee foog nga suuxat ndox yi nag bokkuñu na ndox yoo xam ne boo ko soxatee woon sa njëmbat léegi mu daal di dee kon li ñuy jàngit lu ñuy segg lay doon te borom bi ne iqra waaye daal koy leeral ne bismi rabbik jàngal waaye jàngal ci sa turu borom kon ndaw li nañu ko jàngal alquran moo tax moo tax borom risaala ibnu abi sayd al xayrawaani wax wax lu am solo ci muqaddima mu ne wa awla ma uniya bihi nasixun wa raqiba fi ajrihi arraqibun isaanu alxayri fi xulubi awlaadil muminin nee na li gën a am solo loo xam ne ku bëgg a laa biiri nit ñi sa nga war a sonn ku xemmeem ab yool fa nga war a wut ab yool mooy fexe ba dugal lu baax ci xoli doomi jullit ñi lu baax loolee nag mooy alquranul karim ndax lépp lu baax bi ci moom inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam su borom ne alquran ji moom day mooy jindee tege ci yoon wi nga xam ne moom rek boo jub جراد طير كلما امتد شعاع ah, ñeenteelu charte ba ci wàllu yar mooy ar rufqatu saliha mooy nag xale bi nañ ko wutal àndandoo yu baax nañ ko wutal àndandoo yu baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne laa tusaaxib illa muminan wala yakul taamaka illa taqi nee na booy wut àndandoo bul ànd ak lu dul ku gëm yàlla bum lekk saw ñam lu dul ku ragal yàlla xam nga ki nga xaritool ba muy dem sa kër di lekk saw ñam kooku fekk na duggante ngeen lool moo tax mu ne wala yaqul taamaka illa taqi kon xale bi nañ ko wutal àndandoo yoo xam ne àndandoo yu baax lañ ndax kenn ku nekk ka nga maaseel tolloog moom dafa mën a jeexital ci yow lool daf laa mën a yóbbaale ci yu bari comme ni la mën a génnee ci yu bari juróomeel ba alxutwatul xasana xale bi nañ ko wutal modal bu ne ci kanamam référence parce que gone toujours day am ku muy roy naan bu bu aka neexoon ma mel ne diw xale boo gis bu nekk am na sant yoo bu mu teg ci kanamam boo xam ne mi ngi naan bu ma màggee bu ma màggee man bàyyi diw laa bëgg a doon gone yu bari boo leen laajoon loolu lañ lay wax waaw bu ma màggee man dama bëgg a mel ne bàyyi diw wala dama bëgg a moo xam alal la yor wala xam-xam la yor ñu fexe nag ba ci ñu koy réyalal ci ay bëtam defal ko ko référence nekk koo xam ne nitu diine la nga xam ne ka muy wax ne moom laa bëgg a doon bu mu doon ne alal a tax mu bëgg koo doon bu mu doon ne darajay addunaa tax waaye na doon ne diine tax nañ fexe ba xale bi am ko mel noonu ndax kat suñu borom mi ñuy wax ne ëllëg képp koo xam ne defoon nga ko royukaay defoon ko ci moom te nekkul woon koo xam ne dafa jaar ci yoon wu jub bi bu ëllëgee da nga matt sa loxo di wiccax di rëccu ànd gi nga àndoon ak moom yaa waylata laytani lam attaxis fulaanan xalila wa yowma yabdu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani ittaxastu maa rasuli sabila ak a neexoon ma jaar yoon bi yonent bi jaaroon yaa waylata man day toskare naa laytani lam attaxis fulaanan xalila ak a neexoon diw du sama xarit laqad adallani an zikri ba'da iz jaani moom de moo ma tànk moo ma wàcce woon yoon wu jub bi gannaaw boo xam ne na xamoon naa ko ba pare moo tax ndaw li mën naa jàng xam lool alquran xam sunna xam lu baax waaye ay àndandoom tëraw li ko ba yóbbu ko ci leneen moo tax kon wutal ko àndandoo yu baax baax na lool juróom-benneel ba mooy waxtoom ñi di ko jariñoo ci luy jariñ maanaam bañ koo bàyyi mu amu widd ndaw li buñ ko yar waxtoom bu mu def waxtoom buñ ci bàyyi benn paraaf buñ ci bàyyi benn widd lépp nañ ko jël ndax luñ ca bàyyi ci ak widd rek ña nga xam ne dañ koy jëmloo feneen mën nañoo exploiter wi du boobu kon dañ fexe ba waxtoom fees dell ci lu baax ci jaamu yàlla ci jàng xam-xam ci jokk ak bokk ci def lu baax yiw yi nekk ci biir lislaam jamono bu nekk nit ki am na lu mu ci war a def xam na yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa toog yi ne waaw ana kan ci yéen tey moo ci seeti ko feebar Aboubacar ne man mu ne ana kan ci yéen tey moo ci gunge ko faatu ñu di ko rob mu dem ànd ca rob ba Aboubacar ne man mu ne ana kan ci yéen tey moo ci gis miskin bu tumuranke mu dimbali ko jox ko dara Aboubacar ne man mu ne ana kan ci yéen tey moo ci xëye koor Aboubacar ne ah man de koor laa xëye yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne yii day du daje ci nit lu mooy dana taxe yii ma lim nee na ku mu daje ci yow lu mooy bokk nga ci ñiy tax maanaam noonu laaj bi bettee te Aboubacar yàlla defal ko tawfiix mu nekk ci yooyu moo lay xamale kon daf koo dëkkee woon moom moo lay xamale daf cee taxoon ndaw li dañ ko war a yar ci loolu jamono bu nekk am na loo mën a def boo daree toog sa kër waaw laajteel waaw xamu leen ci koñ bi kenn ko fi feebar yëgu leen fi ko feebar bañ la addiw defe man nga dem seeti ko wala nga déglu rawatina léegi nag tàggee yi moom saa boo bëggee dem ci àndale moom bëgg gu nga gis ku faatu moom jamono bu ne moom mën nga ko defi moom kon boo naree toog widd naan tey defuma dara demal ci àndale doon ci xamoo ñe ñuy suul sax nga fekke ji ndaw li ñu yar ko ci loolu wala ndax demal ca garage ba doo fa gis mag mu wàcc yoon ay bagaatam xamul fu mu jëm attanu ko nga ngàbbale ko ko yar ko ci gëm def lu baax boobu nga xam ne fa mu toll mi ngi wër lu baax lu mu def loolu buñ ci yaree ndaw li defe naa ne kon widd yu baree baree baree bari yu ndaw yi jeexal seeni waxtu bu boobaa danañ ca mucc am na yi nga xam ne nag lor yi nga xam ne càggan ci yar san njaboot ci lislaam dana ko jur yar san njaboot ci lislaam ni mu amee solo waaye tàggan ci itam nag noonu la garaawe ku ci tàggan ci yar sa njaboot ci lislaam day mujj njaboot googu nekk mbugal ci yow borom bi nee na am na ñoo xam ne dama leen di mbugale seen alal yëg seen doom yi fi ne am na waaju am alal lool waaye yërul njaboot ga ba njaboot ga mag di jariñoo alal ja par force te duñ ko teg kenn nag moom waaw toujours da moo tax sax bu dee ci ñi gëmul yàlla sax léeg-léeg ñu far xaru ñoom waaw ndax liggéey alal ji sonn ci lool am ay ponkali doon yi waxambaane jànq yoo xam ne bu ñuy dugg ak bu ñuy génn doo yëg sa yoon nekku ci te lu ñu manqué la nag laaj la ko waaw boo leen bëggee créer problème ñu ànd ak seen yaay bootul dem tribunal ñu jox leen kër gaa alal ja yow nga dem ca mbedd waaw nga xam ne da ngay maslaa rek ngay maslaa ñeme woone kenn foo jëm wala foo demoon nga kooku musiba la moo tax borom bi ne wala tujibka amwaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu an yuadibahum biha fi dunya déggal déggal wala tujibka amwaluhum seen alal yi bu mu la yem de wala awlaaduhum ak seen doom yi ndax lan innama yuridu llahu an yuadibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun suratu taw nee na yàlla da leen cee nar a mbugal yàlla da leen cee nar a mbugal mbugal bu metti lay doon alal yi ñu ngi koy jariñoo te amatul benn kilifteef ci këram ndax ndaw ni boo ko yërul ci lislaam bu dee jógee rek duutu la tegati fenn duutu la tegati fenn ñiy respecté seeni way jur di leen considéré mooy ñiñ yaroon ci lislaam ndax way juroo day fekk mënatul bu fekkee nit ki ne dañ koo yaroon ci loo ko adduna ku nekkul a participer ci adduna day jàpp ne amatoo xiima boo demoon ci réewi tubaab yi tey màggati tubaab yaa fa gën a sonn ñoo fa gën a tumuraan ñoo gën a kër ga sax bëgguñ fa dëkkat bëgguñ dëkkateeg seen i doom ndax ñoom dañuy jàpp ne adduna ku mënatula intaaj mënatula produire dara yokk ci li fi am lu may da ngay consommer rek mais yow yokkatoo dara paa bi toog ci kër gi rek di añaka reer paa bi kon kenn mënatula dëkk ak moom nag na génn waaw lay déposé ci àll wax na yow dangay ngay tardeel nit ñi waxuma la da jéem a am baat nag naan fu ngeen jëmat da ngeen may tàggoog da ngeen loolu xalaatoo ko moom kon ci ñu yar ci lislaam rek njaboot gi ñu yar ci lislaam ñooy mën a xam aqi way jur parce que yor way jur ak doom dafa bokk daanaka doo gis ci alquran mu naan wa wasayna al insana bi waladihi doo ko dégg mukk bi waladihi déedéet ndax doom ci investir la jamono bu neen mi ngi gën a mën te am na loo ci yaakaar dafa mel na tool booy bay rek tool booy bay da koo ji te lim tële woon ren da koy man bu déwénee xale bi lu mu tële ren bu déwénee man ko ren mënul woon a mënul woon a dox mi ngi dox li nga daan def ci moom day gën di wàññi ba far di la defal amaa màggat mi nag moom li mu mënoon ren da koy tële bu déwénee màggat mi lu mu mën ren bu déwénee da koy gën a tële waaw kenn yaakaaratul ci moom lu mu lay defal moo tax ku gëm yàlla rek a ko mën a taxaw moo tax yàlla di ko dénkaane lu bari wa wasayna al insana bi walidayhi moo ngi gis ci biir alquran wa wasayna al insana bi walidayhi ku gëm yàlla rek a ko mën a taxaw koo xam ne lu mu mën da koy gën a tële te boole ca nag yorum xelam yor aw làmmiñam lu ko naqari mu wax lu mu bëgg wax lu mu gis lu dul noona mu critiqué kooku ku gëm yàlla rek moo ko mën a yore moo tax nag bu ñu yorul ndaw ñi ci lislaam mag ñi ñooy njëkk a tumurànke ci ñoom ñaareel ba kersa gu dem ndaw yi bu ñu leen yorul ci lislaam duutu ñu am kersa te loolu ñu koy gis yére yu gàtt yi ñuy gis xale yu jigéen yi di ko sol jigéen niñ ko xamee woon mooy kersa jigéen liñ ko xamee woon mooy kersa su demee nag ba cër ya gënoon a làqu ci moom sax mu di ko génne dem bay génne ay jumbu xam génne ay poojam defe ne loolu taar la defe ne loolu la jekk la xam ngeen ne kooku dara ci kersa nekk la te dara warulu ko lu may neenal yarub l'islam moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam ne inna mimma adraka annas min kalaami nubuwati l ula ida lam tastaxi fasna ma fi nee na bokk na ci li nit defe ci waxi yonent yu jëkk ya mooy ku amatul kersa bay boo def lu la ndax doomu aadama kersa rek moo ko ràññat léegi bàyyiwul bu fa kersa googu nekkatul daanaka day la ne bàyyiwul bokk na ca la muy jur itam dënge ay way jur al uquq wa xaqu rahim ak bagg ak bokk kuñ yarul ci lislaam du xam aqi way juram du xam aqi mbokkam day daal di fuul su fekkente ne am na jàpp ne lim am moo ko may boppam la ca ay way juram doon daj ca ba muy jàng wala ba muy jàng mécc ak mbokkam ña ko doon dimbali ña ko fatoon ci seeni kër ña ko daan joxe paas yépp lay fàtte ñépp lay xarab wane ne moom lim am moo ko amal boppam kenn bokku ci loolu résultat yi nga xam ne ñàkk yarul islam euh, dana ko jur am naa meññet yi muy jur nag mooy birrul waliday yi ku bëgg say doom topp la déggal la teral la bu ëllëgee yar leen yarul islam ndax kat la nga ji rek moom nga mën a góob langa nga moom nga mën a góob su fekkente ne yarub lislaam nga yar sa doom suñu màggee danañ la taxawu taxawiinu lislaam su fekkee beneen yar nag yarub tubaab yarub nasaraan nga yar sa doom parce que ñooñu yar ba ñuy yar ñoom li ñu gëmloo nit ki mooy boppam ak alal boppam lañ koy wan ak àdduna lañ koy wan bëgg a wax ne képp ku bëgg a dox sax sa digganteeg sa intérêt yi bopp kooku sacrifice moo tax nga gis xale bi borom bi tabaraka wa taala day wax ne wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira yàlla yal na nga yërëm sama ñaari way jur gi yërmande ju mel ne nañ ma yare woon ni nga ko yare woon rek noonu la lañ soo ko yaree yarub lislaam mu yërëm la yërmandey lislaam soo ko yaree beneen yar mu yërëm la yërmandey yar booba te yërmandey yar booba mooy nañ fexe ba bu mu dee rek fexe ba mu dee na am daal lu muy lekk bu feebaree nañ ko faj waaye nag jox ko benn gëdd jox ko benn bonheur moom du ci am moom bokk na ci njariñu yarul islam itam saw tur day continuer ak say jëf say bu baax li nga fi doon def soo fi jógee sa doom yi nga yoroon ci l'islam ñu continuer ko day mel ne ba tey yaa ngi moo tax nga gis yonente bi Sakariya doon wax naan yarisu nii wa yarisu min ali yaqub wajalahu rabbi radiya ñu jëlee ci abi Hurayra yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne doomu aadama sofaatoo jëfam yëpp dagg ba mu des ñett mu tudd ca sadaqa jaariya sarax bu mu fi bàyyi woon nit ñi di ko continuer di jariñoo wala xam-xam bu mu fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo walla doom ju baax ju mu yar ci lislaam bu koy ñaanal moo tax benn waaye ne dajale ñett yëpp dajafe na waaye mu ne perte ñett yëpp itam nag toskaar ñett yëpp nga ñàkkandoo amoo sadaqa jaariya amoo ilmun yuntafau bihi amoo waladun saalix yad'u lak ah kooku moom ko am taskara dajale ñett yi jafe na waaye perte yëpp nag te nag biñ ci xaw a gën a mën a sabablu nag mooy doom jooju ndax alal moom a am ca looy defare loo fi mën a bàyyi muy continuer léeg-léeg mën ngay sàrxe waaye sadaqa jaariya nag dafa yombut moom ndax moom lu am solo lu dëgër loo fi bàyyi lay doon nit ñi continuer di ko jariñoo xam-xamit am ca loo mën a taalifib téere wala loo mën a jàngale ay nit ba xam-xam bay law di dem am ca loo jëfe moom yomb na waaye loo ko tasaare rek kooku néew bu kawe la ba tax na doom moom gannaaw suñu borom tabaraka wa taala wërsëgal ne ko ñu bari yow soo mënta yarit nga joxe ko ñu yaral la ko ba mu nekk wala dul saalix ndax yee moom mënoo koo def lu yaa ko mën a defal sa bopp mënoo ne kenn defal ma sadaqa yi wala kenn nga naa ko defal ma xam-xam bu ñuy jariñoo am naa nag defal ma sama doom bii muy doom ju baax mën nga koo jox nit koo yaakaar ci moom mu defal ma kon boobu waras na cee mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax bokk na ca doom ji soo ko yaree yar bu baax lan lay jural bu ëllëgee danañ lay yéegal ci aljanna koo xam ne sa daraja yëggu ko woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne yoodaxu ala rasihi taajul waqaa ay ala rasil walid wa yuqta walidaahu ala rasil walad wa yuqta walidaahu xullatayni laa yuxawamu lahuma dunya fa yaqulaani bima kusina hada wa yuqaalu lahuma bi axsi waladikuma alquran rawahu daari yonente bi alei salatu wasalaam nee na yowmal xiyaam xale bi doon jàng alquran dañ koy solal mbaxanam wurus ay way juróom yi ko doon loo ñu solal leen col goo xam ne yonent bi nee na buñ ko doon xayma ci adduna alali adduna jëpp buñ ko xayma woon du mën a jënd col boobu col bi ñuy solal ay way juróom su ko defee way jur yi ne waaw nun fu ñu jëlee gii col nun kat liggéey yu nu woon ci adduna lu nu may lii ñu ne leen seen doom ja doon jàng alquran ci lañ leen terale lii ñu ne loolu dara ju gën a kóor borom sàcc bi wax ko ne fa yaa ayyuhal xaari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli xaalin mubajjila hani'an mari'an walidaaka alayhima malabisu anwaarin min attaaji walxula mu ne fama sannukum bin najli inda jasaihi ulaika ahlullahi wa taqwatullah mu ne fa yaa ayuha alqaari yow miy jàng alquran mutamassikan bihi ngoy ci mu ne hani'an mari'an nee na maa ngi lay ndokkeel ndax lan walidaaka alayhima malabisu anwaar say way jur la njëkk a décoré solal leen mbubbi leer mu ne waaw kon nag comme way jur yi lañ defal loolu lu ngeen yaakaar ci doom bi fama sannukum bi naj bi inda jasaihi kooka moom ulaika ahlullah suñu boroom da leen di teg ca wetam te keroog arab ne ñii ñooy sama njaboot yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko inna lillahi ahlin yàlla am nañ njaboot ci nit ñi ñu ne ko ñan ñooy njabootu yàlla mu ne ñuy jàng alquran ñiy jàng alxuraan bu ëllëgee suñu borom da leen di teg ci wetam ni ñii ñooy sama njaboot teral leen ci xeeti teraanga yoo xam ne ku melul ne ñoom doo jot teraanga yooyu kon nag ñu ngi dénk mbokk yi di dénk suñu daara yu mel nii fu mu am daara waroon naa jar ni ñuy demandé ji ab hopital wala ab dispensaire di ko jéem a wuti ñuy jéem a wute ji noonu daara bu ko amul jar nañ ñu dem demandé ji ko wuti ko jële nit que ko mën a jële ñëw yoral ko lim mënta ñàkk buñ defee ne ab jàngalekat dañ koy fay alquran kenn mënu koo fay Sëriñ nax bi nee bu fekkoon te aw araf mu ne da nga cee fay mu ne baa nga fay junni mu ne siin nga fay junni mu ne miim nga fay junni ba tey joxe woo akam kon nag ci mokkal sa doom Fatiha wala mu mokkal isbu sabis ba wala mu wàcc na ko alquran kooku ñaata milliards da ko amel buñ ko doon calcul kon kenn mënu koo fay moo tax damay wax ne kii laaj kii jàngale bu mu xeeb liñ koy jox moom it waaye kii joxe bu mu naw lu mu joxe loo joxe ci sa doom bu ko naw tolloowul ak liñ def ci moom yow itam luñ la ci jox bu ko xeeb ndax buñ la ko joxul woon da ngaa waroon a def li ngay def ndax li la ci yàlla fay bu ëllëgee ka la dimbali ba jox la loo mën a toogee di ko def loola kooku itam ko jara sant ñaar yooyu ñu ko defee rek dinañ mën a ànd ki ñuy joxe du kii joxe du naw bul ne mukk la ñuy fay sama doom ji maa ngi fay weer wu ne junni wala ñetti junni defee na loolu dafa bari déedéet bul naw bul naw kon jàngalekat bi la ko dox lu mu mën a toroogee la moo xale yi ba mën leen a jàngal rek la waaye tuddutu fay tuddutu fay parce que bu ko doon fay dañuy wut kër kër xiiba bi fay toujours ki la defal dañuy dendale wëleeru lim la defal ak li nga ko nar a fayee ñu bokk calcul ba am tolloo na ndéet ah ki la génne ci ak réew jàngal la alquran nga xam nooy jullee xam nooy jàppe loolu ñu xool ban valeur la am ñu xiima ko nga joxe ko danaa loolu amu ci nag dañoo joxeel téeméer wala joxeel ñaar téeméer wala joxeel junni loola bu boobaa dimbalante la ngir jàngalekat bi mën a toog jàngale sa doom mën a toog jàng te itam danaa di wax léeg-léeg da ngay dégg ñuy critiquer daara yi am léegi moo xam ay internat la wala ay yooyu di fayu ñu naan ñoom day dañuy fayu ma ne leen ne njàng mu nekk gratuit mun mësta yu amut xanaa kay fay gi léegi day génne ci poosu way jur wi bu jëkkoon ci xale bi la daan génne ñun ñëpp a fay parce que daara jox da nga daan xëy tool xëy tool ba tisbaar léegi nag sax bu asamaan masaan seet bi nii ñun daara ñu ne daa nga am weer woo xam ne sax doo yàgg fa bu asamaan doo nga masaan seet bi nii moom dañuy aj àlluwa yi moom ba njimi buur ba raadu ba bañ ba xaw ba pare doog a des wat jariñ nga de yooyu jur yow nga yow jaaxal man de waaja laaju ma da laaj de dara sa doom de waaw sa doom moom moom <laughs> laaj dañ ko dara de waaw kon nag léegi dañ ko wëlbati ndax boo ko seetee wax dëgg yàlla way jur wi moo gën a yey ci def ko xale bi liñ ko daan gàll gàll ko muy liggéey loo xam ne moom la sëriñ bay dunde gàll ko di yalwaan lu muy lekk di yalwaan lu muy sol te yow way jur bi li tax nga ne mënatoo jàng da nga ne wuti dépense ak xam mënatoo jàng way jur woo laaj danaan man tëlatuma jàng damaa yor kër waaw xale boobu nga bëgg a yorloo ne moom lu weesu kër yorloo nga ko boppam yorloo ko ak sëriñam ba noppi rek jàngaloo ko boole kon kay yow moo la gën a métti aw loolu moo tax léegi ñu wëlbati ko gàll ko way jur wi nga xam ne moo gën a am jopp man koo gàlloo xale bi xale bi mën a féete ci am njàng kon bu ñu wax ne njàng njàng moom fopp day am muxaabil comme jamono ji moo doxe lépp ba xëy na tool yi demeetul loolu nit bu bari nekkatuñ ci àll bi mën mënatuñoo liggéeyloo xale yi moo tax ñu liggéeyloo way jur yi waaye pour liggéey way jur yi liggéeyul xale bi liggéey waaye njàng moo xam ne xale ba deful dara way jur wa deful dara moo de man gisaguma ko boobu <laughs> man gis gisaguma ko ci njàngum alxuraan te it boobaay barke da ca du nekk xam kon nañu xam ne ñiy jàngale ci façon boobu wutuñu xaalis waaye gën a yombal liggéey ba gën koo gaawal rek la ñuy wut te jamono moo ko kon wayjur yi luñ cay joxe buñ ko naw ku ci amul doom itam sax tem na ca koñ ba day ca joxe ku ci amul doom te daara ne ci sa wet ca koñ ba wala nga dégg ko foo ko mën a dégg te am loo ca mën a def dee ko ca def boo dendeeg ñoom bu fekkee mën nga leen a tibbalu ñam dee ko def bu fekkee mën ngaa jël ay yére fóot ko dee ko def te xam ne lépp luñ dee bindal yowmal qiyaam loo xam ne bis boo ko fa fekkee da nga réccu loo lu tax nga néewaloon kon ñu ngi leen dénk daara yi bu baax a baax a baax sëñ daara yi ci jàngale yi nañ góor a góorgóorlu sellal seen digganteeg seen borom xam ne li ñuy liggéey yàlla la ñuy liggéeyal te ku liggéeyal yàlla nag borom bi tabaraka taala moo ci jàpp daara ji jàppal ne entreprise yàlla la yàllaa ko moom ñi chef de entreprise bi doxaleen entreprise am lu ca manqué mu toppatoo ko suñu borom tabaraka wa taala moo leen ko dàq fuuf soo ko defee mbiram amma soo ko defee sa mbir nag mu bàyyi la amma soo ko defee mbiram nag moom yàlla boobaa insha allahu da cay jàpp te da koy jëlee kanam yàlla yàlla dëgëral daara alquran yépp yàlla yàlla dëgëral jàngalekat alquran yi yàlla yàlla may way juri kattan yu mën a taxawoo seen i doom ñoom itam ba jàng alquran xale yi itam yàlla leen yàlla may wér i xel bañ jàng alquran bu baax a baax a baax ndax kat ci la lépp nekk lépp lu borom bi tabaraka wa taala dige eh, ci alquran jooju la ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu كلما طاب السماء كلما